صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه صلى أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم alhamdulillahi kaashifi lxumma wa salaatuhu wa salaamuhu ala shafiil umma wa ala alihi wa sahbihi al aimma wa man tabiahum bi ihsanin wa starshada bi rushdihim ila yawmi alqiyama mushahidi wa mushahidati RTS 1 assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi yéen ñi baaxoo di seetaan rajo télévision la RTS ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo di leen balu xaq di leen bal xaq di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jiital si nuyoo bi ak baalu xaq yi ñi jiite réew mi si wàllu politique ñi ko jiite si wàllu diine ak aada cosaan di ñaanal kenn ku ci nekk la nga jiite yàlla na yàlla woyofalal la ko te itam dimbale la ak ay ànd yu lay dimbale ca liggéey ba defal la ci tawfiq zahiran wa batinan naka noonu itam mbokk yi ñu ngi nuyu kilifay kër gi di la RTS li ko commencé si général bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy ay collaborateurs yu koy dimbale ci liggéey bi jaar ba si équipe bi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey du dal waa régie ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ñëpp di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal yàlla mu nangu liggéey bi defal leen ko seen misaanu xasanaat xasanaat naka noonu tam di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di seetaan Duudal donte ne xëy na décor bi changé na wala boog waxtu wi soppeeku na bés bi soppeeku waaye terewul ba léegi Duudal moom moom mooy wéy di ànd ak yéen ngir gën a dab seen i bànneex yéen ñi nga xam ne yéenay topp jotaayu waxtaan bii nga xam ne seen mbokk mu xeeb mi moo koy def jàkkaarloo ak seen soppe Oustaz El Hadji Mouhamadul Amin Diop oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu oustaz Birama Bassine Diop ñu ngi lay delloo nuyoo yu gën a sell. Eh, di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mm-hmm. noonu la ñuy nuyoo sunu téléspectateur ak téléspectatrices yi nga xamante ne ñooy safoo la RTS mm-hmm. rawatina ñi taamu jotaay bii di dudal di mm-hmm. ànd ak ñun di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala li ñuy ñaanal sunu bopp yal na yàlla defal leen tawfiq yàlla defal ñu li nga xamante ne moom mooy ixlaas ak ak qabul niki noonu tamit euh, la ñuy ziyaare di nuyu di ñaanal kilifay réew mi ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala yal na leen yàlla sàmm wattu leen yàlla boole leen ak bitaana saaliha goo xamante ne da leen di dimbali di leen gunge ci yoonu dëgg di leen ko yombalal noonee la ñuy ziyaar kilifay kër gi ñaanal leen borom bi subhanahu wa taala na yan bi oyof yal na yàlla subhanahu wa taala kattanal leen dëgëral leen Oustaz Birama mhm. ñuy ñaanal suñuy wayjur yal na yàlla sàmm yal yàlla wottu yal na yàlla kattanal ñi ci jiitu yal na leen yàlla jéggal yërëm leen xaara leen aljanay firdaws allahuma amin xaara leen aljanay firdaws saa bàyyi bopp mi ngi laa nuyu ndax demoon naa Kaolack si ay bés gay ñu génn mu ngi leen nuyu bu baax di bëgg ci yow ak isa aju yëpp di jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñooñu dénk liggéey bi di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen yiw yàlla yàlla defal leen tawfiq zahiran wa batinan di jaajëfal nag oustaz Mohamed comme ñu ko waxee bi ñuy door mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy topp jotaayu waxtaan bii di Duudal fu ngeen mën a nekk ci réew mi ak biti réew ñi ngi bég lool ci jàkkaarloo ak yéen waaye ñi ngi bég ci retour yi laaj yi ak saytu yeeg toppeeku yi topp yi ak nemmeeku yi am na solo lool waaye ngeen xam ne nag ni ko oustaz waxee jotaayu nafar la ak bàyyante xel waaye jotaayu jàng ak jàngale waaye jotaayu nafar la ndax bu dee jàng rek wax dëgg yàlla réew mi moom bëri na ay jàngu lool kon ñëw bu ñëwee rek dañuy ñëw indi nafar ñu ngi jaajëfal soxna soxna soxna Fari Oustaz Mohamed liggéey bu rafet lay def bu ama am solo di ko jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla tawféex mbokk yi yéen a baaxoo wala Oustaz Mohamed dafa baaxoo ñuy door jotaayu waxtaanu duudal ak hadith di jour ngi dem jëli hadith du jour ñëw incha allah dugg si waxtaan yi mu gën a am solo incha allah soxna Yacine Diagne ca mbuur ak mbooleem waa Mbour Thiès Fatick Kolda Tamba fu ngeen nekk ci réew mi di topp xam leen ne ñu ngi bég lool wéy leen aussi di topp jotaayu waxtaan bi ay séquences yu am solo Oustaz mi ngi koy dugal ci phase TikTok Oustaz Mouhamadul Amine Diop foofa nag débat ba fa la mbir yee nekkee fa la gën a amee solo incha allah Oustaz dañoo baaxoo di saa su ne bu ñu ñëwee si jotaayu waxtaan wi di du dal dañuy dooree waxtaan wi ak li nga xam ne moo di hadis du jour xadis di journal li nekk particularité mooy dafa nekk tasalsul mantiqi maanaam suite logique à chaque fois xadis bi ñëw dafay wuyu dafay topp ca bëgg jiitu woon tey dafa mel ni yaa ngi ñëw ak ñun oustaz li ñu tuddee taxiyatul masjid oustaz luy taxiyatul masjid macha allah sang bi wax sallallahu <laughs> jërëjëf oustaz euh, Biram euh, di di di di gën a nuyuwaat soxna Yacine Diagne Yacine ca Mbuur Mbuur mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax macha allah euh, effectivement taxiyatul masjid mooy nuyu jàkka nuyu jàkka eh, nuyu jàkka xam nga jotaay bi weesu jël nañ li nga xamante ni moom mooy bu ñuy dugg ci jàkka mhm. ni nga xamante ne la ñuy dugg teggin wi ñuy duggee ci jàkka mhm. mooy jiital tànk ndeyjoor mhm. ñaan li nga xamante ne moom mooy ñaan bi donc dugg nañ ci jàkka ji suñu duggee ci jàkka ji li ñuy war a njëkk a def moom mooy nuyu jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu rootee ci xadisu abi qatadata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen bu duggee ci jàkka bu mu toog lu dul ne dafa julli ñaari rakka donc nit ki bu duggee si jàkka ji li mu war a njëkk a def moom mooy julli li nga xamante ne moom mooy ñaari ñaari rakka ñaari rakka yooyu moom la ñuy tuddee tahiyatul masjid mooy nuyu gi ñuy nuyu jàkka ji mm-hmm. eh, ci bi ñuy waxtaan ci charte julli mm-hmm. li jëm ci yan heure la ñuy julli ak yan heure lañ dul julli yan heure lañ dul naafilaak yooyu ñëwoon nañ ci wuute gi nekk ci biiri boroom xam-xam diggante ngiruk imaam malik ak yeneen ngir yi ci heure yi nga xamante ne kenn du ci naafila mm-hmm. donc ida daxala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalliya rakatayni kenn ci yéen bu duggee ci jàkka bu mu julli lu bu mu euh, bu mu toog mm. du moins kenn mm. ci yéen bu duggee ci jàkka ji bu mu toog lu dul ne dafa julli ñaari rakk ñaari rakk yooyu bu dee ci ngéeruk imam malik bu tolloog heure yi nga xamante ne dañoo aaya nit di ci julli bu mm. boobaa nit ki day dugg ci jàkka ji toog mm-hmm. mais ci yeneen ngir yi heure boo munti duggee ci jàkka da ngay julli ñaari rakka ngir ne salaatu zaat sabab la mm-hmm. julli boo xamante ne daa am lu ko waral sabab sabab bi mooy dugg gi ngay dugg li nga xamante ne moom mooy jàkka mm-hmm. mais imam Malik moom dafa ñot di tere gi ba ci li nga xamante ne mu ëmbaale mm-hmm. bépp julli bu munti doon même bu fekkente ne dafa am sabab bu tax julli googu ñu koy julli macha allah oustaz Mouhamadul Amin Diop kon loolu loolu moo di Eh, li ñuy a tahiyatul masjid kon nag boo duggee ci kër nuyu borom kër ga waaye yenn saa yi nga dugg ci kër jamono joo xam ne fekk borom kër ga di dallu wala nangam waxuma noonu exemple la rek pour yi tere gi nga xam ne ñu ngi koy tere nga xam ne rek sabab la comme ni ko Oustaz Mouhamed jàngalee di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ko tawfiq te fay ko yiw mbokk yi dañuy dugg nag li nga xam ne moom la ñu dooree jotaayu waxtaan bi mu am solo lool pour man lu tax mu am solo comme ni ko Oustaz di waxee genre sondage la bu ñuy def ndax waxtaan wii di duudal ñu ngi koy dooree dëgg-dëgg nag ci kàddu askan wi kàddu askan wi soxna Khady Thiam moom mooy ñëw daje ak ñenn si askan wi ñu indi lenn ci li ñenn si askan wi di xalaatee tomb ba nga xam ne wala tomb ba nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ngi dem jëli kàddu askan wi xool lu fa xew te ñëw jotaay si ñëw yaatal jotaay bi incha allah. a ñeent ñeent waaw. fukk ak ñaar de laa ci jàpp waaw. Kabar. Tari Fatiha. daal di rukkoom sujjoot waaw yooyu jàpp naa sujjoot daal di jugaat daal di kabaraat tariwaat waaw. bi ci njëkk mooy yéene bi ci tegu mooy kabar euh, taxaw taxawaay bi farata la jàng farata la taxawaay bi nga toog di jàng taxaw di jàng noonu farata la tey sa bët uum mooy sujjóot farata la dellu taxaw ci farata yi la sujjóot mooy sëpp sa ji ci suuf farata la euh, dal mooy ba ñu nekk di yëngatu nii forte la eh, am na bu des am na lu ma kii de eh, waaw dal daal for hmm? waaw dal bi forte la toogaay bi nga toog nii di taaya forte la sëlmal bi nga sëlmal loolu forte la bi ci jëkk mooy kabaru armal mooy première bi deuxième bi mooy taxaw bi ngay taxaw di jàng faatiya boobu farata la troisième bi mooy rukkoo bi ngay rukko taxaw fa yàgg fa sigi bi ngay sigi taxaw fa yàgg fa su boobu yëpp farata la nga ñëw sujjoot farata la toogaay bi nga tooga sigi toog farata la jàng al ah, jàng faatiya bi fara faatiya bi farata la ci parce que du du mënoo ko mënee su koo bay ci ci ci ci kii ci ci kii ci ci julli maa ngi koy jaawalee sax ak ak sunna yi sax juróom-ñaar la war a ak eh, kii salmal bi farata la xam nga danga ko farata yu bari da nga koy baamuwaat moo tax moo xaw a bari mais mais boo fekkee kii woo ko da mën nga ko teg si juróom-ñaar. macha allah tabaaraka rahmaan kon. Euh, kaddu askan wi moo nekk noonu li tax li tax mu demee ni mu demee nag firiwul ne am na leneen am na am na am na am na lu ëpp lii maanaam am nañu lu ëpp lii si kaddu askan wi waaye dañuy tënk génne yenn yi nga xam ne mën nañ koo jël ngir mën koo partager ak mbokk yi léegi nag yow mi nga xam ne yaa ngi jàkkaarloo ak man buñ la laajoon lan mooy faratay julli ñaata la lan mooy doon sa tontu faratay julli ñaata la lan mooy doon sa tontu yow ak keneen ak keneen li tax laaj bi oustaz dinaa ko jox léegi mu am benn benn commentaire bu ndaw mu def balaa ñuy dugg ci biir waxtaan wi mais dañuy fàttali toujours di fàttali di fàttaliwaat mbokk yi ab jullit war na def yitte ba lépp loo xam ne war na ko ci diineem mu xam lan moo ko ca war en tant que moom maanaam faratay jëmmam ak loo xam ne mën na am man nañ ko cay yóbbaale ndax loolu li tax mu am solo mbokk yi mooy soo xamee lii farata ci yow dina la dimbale pour boo duggee ci njuumte nga xool naka ngay réparé naka ngay saafara njuumte boobee waaye fekkee da nga koy def rek defu nit ñaa ngi koy def ma di ko def mbokk yi est-ce que war na mën a baax dinañ si ñëwaat ci yaatal bu gën a yaatu incha allah Oustaz Mouhamed nga def jàngat bu ndaw ci vidéo bi ndax li ñu war a waxtaanee gën naa yaatul lii incha allah. waaw Oustaz Birama ñu ngi jaajëfal euh, soxna Khady Cissé ak euh, mbokk yi àndoon ak moom indil ñu élément bi nii di jaajëfal sunu waajur yi nga xamante ne partagé ñu ak ñun li nga xamante ne moom mooy savoir boobu nafar euh, sunu benn wayjur mu ngi koy wax ne macha allah euh, ay mbir la yoo xamante ne nit ki da koy def mais après mun na ko fàtte mun na mun na mun na ko mun na koo fàtte hmm. fàtte ko nag tekkiwul ne nit ki du ko du ko du ko du ko du ko def macha allah dégg nga kenn ki wax na ne faratay julli fukk ak ñeent la hmm. donc loolu képp koo xamante ne mu ngi seetaan mun na koo tënkagum jàpp ko ne mm-hmm. faratay julli fukk ak fukk ak ñeent la mm-hmm. li tax mu am solo mm-hmm. mooy wax nga ko euh, ñu koy nafar dafay dimbali nit ki mu xam na lay réparer julleem loolu moo tax mu am solo réere ko tamit euh, mun na bañ a am jeexintal ci julli ci mm. julli nit ki mm. mais xam ko dafa mm. ëppati dafa ëpp ëpp sécurité ci wàlluk nit ki nan lay réparer julleem parce que julli dinañ ci dugg ay ay ay ay pàcc la ak ay ay ay xaaj yoo xamante ni nit ki daf ko daf ko war a bàyyi li nga xamante ne moom mooy moom mooy xel mm. donc xam li nga xamante ne moom mooy farata yi lu ama am lu ama am solo la mm-hmm. ñaareel ba moo di ne euh, à travers Duudal mm. euh, dina permettre euh, téléspectateur bi mu mun a xam julli gi may julli parce mm. que sunu sunu sunu objectif moo di nit ki bépp pratique bu muy def ci diine ji mu mun mm. a duut baaraamam mm. laal ne lii may def kat mm. ndekete lii lay représenté ci biir julli waxoon nañ ko dañoo bëgg euh, juge ci euh, toppandoo julli xam li nga xamante ne moom mooy julli parce que hadisul musii fi salaatihi ba mu ñëwee julli ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maîtriser wul def li muy def yonent bi sallallahu alayhi utalu ko ngant mais daf ko wax ne dellul nga julli waat parce que yow jullee goo ba léegi waa ji dem une fois troisième fois saa bu jullee ba pare def li mu mën bu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi da koy wax ne dellul nga julliwaat yow jullee goo ba léegi mm. donc pour éviter loo sunu sunu sunu mbokk yi ñu bañ a bokk ci catégorie googu nga xam ne ñu ngi julli te te te fekk ni jullee guñu moo tax rot na ci benn athar di wax ne léeg-léeg nit jullil yàlla 60 ans te musaluñ ko nangul julli yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal kooku sa maam Seydi Haaji Maalik wax na ko waxat yusibu aariday insaani maa akmala salaata lirrahmaani maanaam nit dina julli ba ay lexam weex tàll ak bee jaaw te musul julli julli gu mat yàlla ñu musal hmm. am nañu yoon ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na sallu kama raaytumuni usalli à travers RTS à travers Dudal Oustaz Mouhamed dina ñëw yéen ci ay nafar ay tomb yoo xam ne ku ci bëgg a jàpp daa am ci loo jàpp incha allah booleeg la nga jàppoon mu gën a dëgër gën a wóor kon ñi dem jëli li nga xam ne moom mooy waxtaan wi nag thème du jour te ñëw gën koo yaatal mu gën a am solo incha allah. Oustaz Mohamed Oustaz Mohamedul Amin Diop waxoon nga waxaat nga waxaat te mu am solo macha allah allahuma allahuma yu allahuma barik wala rabbuna yu barik rabbuna yu barik julli taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ab jullit. gis nga bu ñu la waxee maçon mooy kuy tabax tailleur mooy kuy ñaw bu ñu la waxee jullit mooy kuy julli maam dañoo jël waxuñ joxekatu azaka waxuñu ajkat bi waaye dañoo wax jullikat bi parce que julli dafa am lu mu représenté ci diine bi nga xam ne moom mooy diine l'islam kon oustaz Mouhamed nga defal ñu ak pàttali lan mooy julli waaw oustaz <laughs> Birama euh, julli euh, benn mooy ñaareelu ponk ci diine l'islam moom mooy sel pilier bi nga xamante ni yàlla subhaanahu wa taala utul intermédiaire digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko koy jox yeneen yeneen pratique u l'islam yëpp pilier wu l'islam yi ginnaaw achahadataani eh, mooy ñaari baatu seede yi bu ci nekk yàlla subhaanahu wa taala dafa yónni jibril mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jox ko ko ba mu des li nga xamante ne moom mooy julli yàlla bi mu koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallama da koo ba ca kaw asamaan fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha donc julli moom kenu diine ji imaadu diin comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee di wax ne alsalaatu imaadu diin man tarakaha man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin julli moom mooy pilier di poto bi nga xamante ne moo téye diine ji ku koy taxawal taxawal nga diine ku ko bàyyi bàyyi nga diine ustaz boroom xam-xam yi dañuy wax ne surtout ñi nga xamante ne ñooy yarkat di wax ne nit ki feek mu ngi julli dina am yaakaar àllaaxira feeg mu ngi julli feeg mu ngi julli dina am yaakaar àllaaxira ki munta ki ñu munta plaideel ki ñu munta layal àllaaxira mooy ki nga xam ne dul julli parce que awwalu maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaama as-salaa li yàlla di njëkk rek la ci jaam bi ëllëg moom mooy li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy julli julli boobu nag mu nekk aqwaalun wa afaalun maxsuusa ay jëf ak ay wax yoo xamante ni yu spécial mhm. yoo xamante ni des na ko ubbee ak kàbbaruk armal di ko tëjee di ko jeexale li nga xamante ne moom mooy kàddu asalaamualeykum muy sëlmal muy sëlmal mu nekk mbir moo xamante ne bu ama am solo la mhm. boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne kudul julli mhm. bu yàlla di dekkal nit ñi àllaaxira yow bu firawna ak haamaan ak ki nga xamante ne moom mooy ubay ibn xalafin ñooñu le ngay dekkaale te te yàlla subhaanahu wa taala li mu wax moo di ne ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne e, ku dul julli ñoom ngay ñoom ngay dekkaaleel mm-hmm. yàlla subhaanahu wa taala wax na ci alquran que ne mm-hmm. ñooñu safara lañ safara lañ jëm fi saqar qaalu lam naku min al musallin donc mu nekk euh, mbir moo xamante ne waxoon nañ ko ci njaal bennuk euh, bi ñuy wax ci jotaayu julli mbir la boo xamante ne bu am am solo mm. donc yow mi nga xamante ne yow yaay jullit bi li mm. tax ñu tuddee la julli mm. moom mooy julli googee kon nañ ko nañ ko fonk loo mënti sàggane si sa àdduna fexeel ba bul sàggane julli ngir ne la yàlla di njëkk rek la ci jaam bi àllaaxira moom mooy julli bu baaxee léppay baax mais bu bonee lay ñëw ci ginnaaw mooy gën a yées yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla nañ ci yàlla musal loo xam ne bi ko kilifa di jox daf laa woo jox la ko te booy buñ lay yóbbu ci moom dañ lay takk defal la ko door la ko jox. Mm-hmm. Mm-hmm. donte na xëy na wuute na nag waaye bi mu la koy jox daf la woo jox la ko waaye buñ lay yóbbu ci moom dañ lay takk defal la ko door la yóbbu ci moom kon loolu tam lu ma a bàyyi xel la. léegi nag oustaz kon gannaaw bi ngi defalee ak pàttali ak eh, ak fàttali ci wàllu julli mooy lan ak na nga ko jàngalee mu am solo lool waxoon nañ ci biir waxtaan yi ne julli dafa am loo xam ne moom mooy tax julli war ak luy tax julli wér léegi nag bokk na si li nga xam ne bu eh, dafay dafay samp julli gi mooy farata ya mais damay dégg ci baatu arab maanaam si arab laa koy indee li ñuy tuddee fard ak ruknu ak alwaajib ñett yi hmm. tey oustaz balaa ñuy dugg si ndax ñëw nañu jaar nañ fa ñu jaar ba agsi fi ñu agsi yow mi nga xam ne yaay topp du dundal xam nga ne effectivement tey ñi nga war a kàbbar pour julli ñu nga war a kàbbar pour julli waaye dafa am lu am solo loo xam ne bëgg naa oustaz defal ñu si ak nafar ci diggante fard ak ruknu ak waajib ci julli ñett yi oustaz ndax benn la bu fekkente ne benn la lu tax ñett yi ñu koy tudd bu fekkee du benn lu waral benn bu ci nekk dafay mel ni boo koy wax ci wolo ndax wolof moom da farata ak li war ak ponk ruknu mooy ponk farad mooy farata waajib mooy li war mais boo ko delloo si arab bi dafay mel ni ñetti ñoo bokk lu ñuy signifié oustaz Mouhamed waaw oustaz Birama <laughs> li nga xamante ni moom mooy euh, euh, baat yooyu di al fard mm. al rukn al waajib mm. euh, su ñëwee ci indal imam Malik mm-hmm. ay synonyme la mm-hmm. bi maanaa mhm. benn mbir la yu am tur yu bëri yu bëri hmm. benn mbir la mhm. yu am tur yu bëri mhm. tur bu ci nekk dafay dafay tekki la moroom ba di tekk mën na remplacer moroom ma ca la nga xamante ne moom lay tekki alfardu al ruknu al waajib ci ngirug imam malik shay waahid shay ci mm. ci ci ci yeneen ngir yi mm-hmm. surtout ind al imam euh, mm-hmm. ci lay teqale diggante al ak li nga xamante ne moom mooy moom mooy mm. al mm-hmm. suñ ñëwee ci ci ngiruk imam malik suñu waxee li nga xamante ne moom mooy ponk wala ñu ne lii farata la wala lii waru gar la war lu war la yëpp bi maanaa la ñuy tekki valeur bi ñu am valeur juridique bi ñu am benn la léegi nag al ruknu al fard al waajib mhm. moom mooy li nga xamante ne laa tasixu al ibadatu illa bihi mhm. mooy mbir mi nga xamante ne jaamu ga ngay def munta wér sans moom te maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib indal usuli indal usuli mhm, donc mbir mi nga xamante ne la ngay def muy jaamu gi ngay def munta wér lu dul ci moom ci moom bi maanaam bu amulee jaamu gi du wér du wér effectivement ñu bindal la li nga xamante ne moom mooy tuyaaba mm-hmm. Mm-hmm. boo ko bàyyee ñu bindal la ah, bàkkaar duma la mm-hmm. du duma la ci donc maa maa laa tasixu al ibadatu illa bihi huwa al fardu wal ruknu wal moom mooy farata bu ñu la waxee lii farata yu julli bi maanaam même chose la wala question bi ñëwee ne la lan mooy li war ci julli même chose la suñ la waxee lan mooy ponk julli même chose même même chose la xam nga julli ci ci ci boppam dafa am ay jëf julli li ko composé wax la ak jëf mhm. wax la ak ay jëf mhm. Mhm. aqwaalun wa afaal moom moo moom julli ay wax ak li nga xamante ne moom mooy ay jëf wax yooyu ak jëf yooyee seeni valeur pois bi ñuy am ci biir julli gi yemul am na ci wax ak ay jëf yoo xamante ne ponk la mhm. bi lu essentiel la ci julli gi mhm. soo ko indiwul ci biir julli gi julli gi du baax mhm. mu am ay jëf ak ay ak ay wax yoo xamante ne euh, du lu war sunna la sunna la mu am li nga xamante ne moom mooy yu ñu sopp mu am yoo xamante ne yu ñu sip la ci biir julli ak yoo xamante ne day yàqu julli yoo xam ne ay ngëneel la ak yi nga xamante ni mm. day yàq julli ak mm. yi nga xamante ne moom mooy ay ngëneel la mm. mustahabat wa wa wa fadail mm-hmm. yu ñu sopp ci ci ci biir julli gi donc wax yooyu ak yi nga xamante ni moom mooy jëf moo tax ñu wax ko sànq ñu ngi koy wax bi ñuy commentaire ci kàddu askan wi ne solos xam mbir yi mm-hmm. mooy def lay permettre nga ràññet la maitrise julli gi ngay julli acte bi may def ci sama biir julli gii nii ban poids la am ci biir julli gi mm-hmm. ban ban ban ban ban mm. ban poids la mm. am ci biir li nga xamante ne moom mm-hmm. mooy julli gi donc suñu jëlee aqwalu salaa amalu salaa aw afaalu salaa wax yi ñuy wax ci biir julli jëf yi ñuy jëf ci biir julli da ngay gis ne am na ci yoo xamante ne ay pilier lañ mm. ay ponk lañ mm-hmm. ay farata lañ ci biir julli mm-hmm. am yi nga xamante ne ay sunna la bi maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo jàngale def ko bu ko nit bàyyee ci biir julli gi dinañ ci ñëw ci ci jamu jëkk yooyu bu ci mm. nekk niñ koy réparé foofu lay wutee mm. am ay mustahabaat ak mm. ay lu ñu sopp ak ay ngëneel mm-hmm. am yoo xamante ne dañ koo sip am yoo xamante ne dafay yàq li nga xamante ne mm-hmm. moom mooy moom mooy julli macha allah kon yooyu tamit incha allah ngeen gën koo bàyyi xel oustaz na ñu xam ne <coughs> alfard ak alwaajib ak al rukun booy xool bu dee ci wàllu njàngale ngir imam malik benn la différence bi ci am lu tuuti la waaye boo ko delluwaatee comme ni mu ko waxee ci baatu wolof la plupart bu ñu waxee lii war rek mooy farata Oustaz Mouhamed léegi nag lan mooy faratay julli kon faratay julli ñu dugg nag wax nañ ci élément bi ne fukk la ak ak ñeent yooyu noonu tey boo ñu ci limal benn ba ñaar ba ñett ba ñeent lan lay doon waaw faraidu salaati inda al imam malik mhm. fi l madhab al maliki mhm. arbaata achar mhm. quatorze lañ fukk ak ñeent lañ donc loolu képp koo xamante ne mu ngi seetaan Duudal jàppal ne suñ la laajatee ak fu laaj bi munta bettee ne faratay julli ñaata la ne ko fukk ak ñeent la mhm. fukk ak ak ak ñeent la mhm. mais dafa am benn résumé boo xamante ni dees na ko dees na ko def mhm. ama sànq maa ngi lay wax ne euh, asalaatu aqwalun wa afaal julli ay wax la ak ay jëf jëlal résumé bi nii dañ lay wax ne mboolee mi waxu julli du farata ci julli. du farata ci julli. wax yi ñuy mm. wax ci julli. Mm. du farata ba mu des ñett. ba mu des ñett. yaa ngi mm. dégg. Mm-hmm. mboolee mi wax yi ñuy wax ci julli du farata ba mu des li nga xamante ne moom mooy ñett. Mm-hmm. ñett yooyu mooy li nga xamante ne moom mooy kabbaruk armal. Mm-hmm. kabbaruk armal. farata la. jàng fatiha. farata la mhm. niki noonu assalaam sëlmal bi farata la donc mbooleem mbooleem aqwaalu sola mhm. mbooleem yi nga xamante ne moom mooy wax yi ñuy wax ci julli du mhm. farata ba mu des li nga xamante ne moom mooy ñett yi tamit mboolee mi jëfi julli hmm. mboolee mi jëfi julli ay farata la ba mu des li nga xamante ne moom mooy ñett hmm. bi ci njëkk mooy yëkkati ñaari loxo booy kabbar hmm. inda takbiratul ihram booy kabbar kabbaruk armal yëkkati gi ngay yëkkati say ñaari loxo loolu xam nga acte la jëf la mais nekkul li nga xamante ne moom mooy farata ñaareel ba moo di toog gi ngay toog pour taaya toog gi ngay toog pour taaya mm. Mm. acte la mm. mais nekkul li nga xamante ne moom mooy farata niki noonu tamit at tayaamunu lissalaam booy sëlmalee li nga xamante ne moom mooy ndeyjoor nekkul li nga xamante ne moom mooy farata donc ci tënk ci tënk ak tënk gu am solo dañ lay wax ne la mboolee parole Mhm. wax yi ñuy wax ci julli mhm. du farata ba mu des ñett ba mu des ñett mhm. mboolee mi jëf yi ñuy jëf ci julli farata la ba mu des li nga xamante ne moom mooy moom mooy ñett macha allah léegi suñu ñëwee wax nañ la ne euh, faraidu salaa aw arkaanu salaa faratay julli wala ponk julli fukk ak euh, la bi ci njëkk moom mooy an niya yéene yéene bi ci njëkk moom mooy an niya yéene boobu nag ñu taxaw si yéene maanaam naka la kañ la yéene naka la ñuy yéenee ndax dañuy wax nawetu waqaati salaati zuhri arba arba rakaat xam nga nuñ koy ni ma koy déggee euh, c'est ça maam <laughs> noonu laa la ko waxee mais nag maanaam yéene gi naka lañ koy yéenee kañ lañ koy yéenee waaw ustaad euh, niya mu mhm. yéene dafa am solo ci bépp jëf ju ñuy jëf mm. ngir ne solo si ci jëf yi ñuy jëf mooy ne mm. mooy ràññetle jëf yi ñuy jëf ban catégorie la mm-hmm. ndax farata la ndax sunna la ndax mm-hmm. leneen ak leneen la mm-hmm. donc loolu mooy solos li nga xamante ne moom mooy yéene yéene nag buñ koy wax ci wàlluk julli moom mooy nit ki am euh, jubluwaay ci jooxe julli gi pour jege ko borom bi subhanahu wa taala jooxe li nga xamante ne moom mooy julli gi pour jegee ko borom bi subhaanahu wa taala yéene googu doon li nga xamante ne moom mooy ponk comme ni mu rotee ci xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu abi xafsin umar ibn alxataabi radiallahu anhu bi muy wax naan samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu innama al amalu binniyati wa innama li kulli mriin ma nawa donc xadis boobu la borom xam-xam yi di jël sukkandiku ci wane ne yéene ponk la farata la ci bépp jëf boo xamante ne jullit bi da ciy dugg rawatina mm. li nga xamante ne moom mooy julli mm. te mooy omar ibn alxataabi radiallahu anhu bi muy wax naan dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne innama al amalu binniyat mm. bi maanaa yonente bi sallallahu alayhi wa dafa ne jëf yëpp yëpp munta am sans yéene innama al amalu daal mu ngay am considération bu ca yéene ànde donc jëf mu ngay am considération bu ca yéene bu ca yéene ànde effectivement mm. donc yéene nag dafa nekk li nga xamante ne moom mooy farata ci julli moo xam julli ga dafa nekk julli farata mm. wala mu nekk li nga xamante ne moom mooy julli julli sunna mm, su fekkente ne julli farata la bu fekkente ne julli farata la bu boobaa laa budda min taayini salaa taayini salaa mm-hmm. waaw c'est-à-dire kenn du ñëw bu dee julli tisbaar la il faut nga préciser ne tisbaar ngay julli bu dee tàkkusaan tamit il faut que nga préciser ne tàkkusaan ngay ngay mm-hmm. ngay julli mm-hmm. bu dee naafila moom mm-hmm. ah mën nga yéene naafila sans nga pré sans nga sans préciser ko mais bu dee julli farata dang koy da nga koy préciser jul eh, yéene googu tamit waxoon nañ ko ba ñuy wax ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy jàpp عند الإمام مالك ولا عند المالكية يجوز التلفظ به أو يجوز التلفظ بها yéena jooju dagan na nit ki wax ko wax ko ci làmmiñam wax ko ci làmmiñam donte ne al awla tarku talaffuz bihi li gën mooy nit ki bañ koo bañ koo wax mais fas ko ci ci biir li nga xamante ne moom mooy xalam hmm. donc ci ngiruk imam malik yajuusu te hmm. dagan na hmm. nit ki ñëw taxaw ne yéene naa julli li nga xamante ne maa ngi yéene julli tisbar yajuusu dagan na wax ko mais al awla tarku talaffuz biha li gën moom mooy nit ki bañ koo wax nag il faut que ñu taxaw parce que léeg nga dégg ñu lay wax ne wax yéene bidaa la hmm. eh, eh, talaffuzu bil bi eh, wax li nga xamante ne bi hmm. niyati wax li nga xamante ne moom mooy yéene hmm. indal indal imam ahmad boo ñëwee ci ngéerug imam ahmad ñoom dañ lay wax ne at talaffuzu biha bidaatun mahalluha alqalb wa mm. talaffuz biha bid'atun mm. li nga xamante ne moom mooy yéene palaasam mooy xol mm. wax ko ci sa làmmiñ bidaa la nga ñëw indal malikiya dañ laan la yajuuzu talaffuz biha yéene dagan na nit wax ko ci làmmiñam mais nag li gën mooy nga bañ kaa wax nga ñëw nga ñëw nga ñëw ci ngirug imam Shafii xoola ni wuute yéeme nga ñëw ci ngirug imam Shafii ñu lay wax ne wa sunnatu talaffudu biha ci ñoom sunna la wax ko sunna la mm. wax ko wax ko sunna la mm. toujours d'habitude oustaz man euh, su ma ñëwee ci ci ci xilaaf madahib euh, masail xilaafiya yi nii mm. daf may gën a jàngal yaatug dënn effectivement yaatu loolu lay jàngale sax di daf may jàngal li nga xamante ne moom mooy moom mooy yaatu yaatug dënn donc yéene ponk la ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy julli waaye euh, nga baal na balaa ñuy continuer rek maanaam si yéene boobu mm-hmm. ndax imam bi yéene yéene imam dafa yéene jiite mbooloo mi ak ki yéene fard boobu bokk na ak itam ndax yéene julleeg ayit wala yéene julleeg ajjuma wala yéene yëpp rek benn benn kii la loolu tam il faut nga leeral ko balaa ñuy jàll. waaw dina ci am benn boo xamante ni pour bañ mu jaxasoo. dama hmm. koy dama koy. bàyyi jot leb ba mu jot. mooy ajjuma bi. Euh, aljuma bi mm. ak li nga xamante ne moom mooy ndax ki nekk ci ginnaaw imam dafay wuuteeg imam ci mm. wàllu yéene wala déet bu ñu mm. yegsee ci buntu euh, roy ci ki nga xamante ne moom mooy imam mais ki nga xamante ne mooy almamuum ki nga xamante ne mooy al ki nga xamante ne moom mooy al ku ci nekk ci ñoom dafa war ci yow nga yéene dafa war ci yow nga léegi nag ndax wuute ci seeni yéene maanaam kii di julli lii kii di julli waaw loolu moom laa wax ne masala yooyu masala boobu nañ ko xaarandi dina mm. ñëw ci place am mm. incha allah bu ko defee ñu comprendre ko mais ki nga xamante ne moom mooy yéene dafa war ci nit ki moo xam moom kese mooy julli mm. moo xam imaam la moo xam ku ñu jiite la waaw mu yéene yéene def waxtu wi waxtu moom lay julli macha allah tabaraka rahman donc ah, première eh, ponk bi mooy yéene mooy li nga ban ban moo ci topp Oustaz Mouhamed ba ci ponk bi ci jiitu mooy yéene wax nga ci am solo ban moo ci topp ñaareel ñaareel ba moom mooy euh, takbiratul ihram takbiratul ihram mooy kabbaru armal kabbaruk li nga xamante ne moom mooy armal hmm. kabbaruk armal hmm. farata la ci julli kabbaruk armal nag buñ ko waxee hmm. moom mooy wax allahu akbar wax allahu akbar waaw wax allahu akbar ah, ah, eh, ñu ñun ñu foogoon ne kabbar alma mooy yëkkati loxo yi ca kaw <laughs> la la la la ah, déedéet kon nag ngeen bàyyi xel loolu effectivement am na ñu bëri ñoo xamante ne oustaz bu ñu ñëwee ci julli gi yëkk dañuy yëkkati seen loxo rek mais du ñu wax du ñu wax allahu mais kabbaruk armal moom mooy nga wax allahu akbar mm. allahu akbar mm. moom mooy kabbaruk armal mm. pas yëkkati loxo xam nga sànq lay wax ne mboolem jëfi julli mm. yépp farata la ba mu des ñett mm. bi ma njëkk a wax moom mooy yëkkati gi ngay say loxo mm. pour pour àndaale ko kabbaruk armal loolu du farata donc lii farata moom mooy allahu akbar mm-hmm. allahu amul amul amul équivalence bu ko mën a bu ko mën a wecc nii ci langue ni ci ci làkku arab tey bu nit ñëwoon wax ne allahu azam du baax baaxul su ñëwoon ne allahu ajal mm. baaxul wérul mm-hmm. ñëwoon tamit traduire ko mm. ne yàlla màgg Mm. amoon na ci benn jamono <laughs> bañ doree jàmm wala. <laughs> xamoon naa mi ngi am ba mi ngi am ba léegi kay fameuse euh, vidéo boobu doon circulé. mi ngi am ba léegi ñëw di kabar di ko lakk ci li nga xamante <laughs> moom mooy làkkam ci aw làkkam donc même bu ko nit ki soppi woon mm. ñëw nga xam ne ci wolof wax ne allahu akbar mooy mm. yàlla moo gën a màgg ñëw taxaw ne yàlla gën a màgg Dieu est grand cest à bu ci nekk euh, repr donte ne hmm. loolu nga wax boo ko indi woon ci arab li muy tekki mooy allahu akbar hmm. mais du la kii lan moo tax moo di ne haada hmm. euh, lafdu taabudi kaddu googee yàlla moo ko def ñu ko kay jaamoo ci ko wax wa tawqifiya mbir la moo xamante ne deesu ko deesu ko deesu ko soppi Hmm. rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sang bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ci benn xadis hmm. euh, miftaxu solati tahur hmm. wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis dafay wax ni li nga xamante ni moom mooy caabi julli moom mooy euh, mooy laab mooy laab caabi julli mooy laab moo tax ñu jëloon ci condition li nga xamante ne moom mooy julli mm-hmm. wax ne at tahaara muy mm-hmm. li nga xamante ne moom mooy laab mm-hmm. donc euh, euh, miftaaxu salaa at tahur mooy laab donc balaa nit mën a julli mën a am accès ci julli gi faaw dafay dafay laab ñaareel ba mu ne wa tahrimuha takbir lii armaal di di di araamal ya daganoon ci yow mm-hmm. ci biir julli gi moom mooy allahu akbar lafdu takbir mm-hmm. takbir buñ ko waxee moom mooy allahu akbar donc mm-hmm. amul leneen loo xamante ne mun na koo mun na koo mun na koo remplacer donc wa tahrimuha takbir xam nga tey jii ni oustaz euh, laata ñuy liqaam euh, dagan na nit gersu wala euh, ne jottali mu foofu ndox ma ma naan xam nga xam nga dagan na mais boo hmm. xësee wax allahu akbar bu boobaa hmm. yooyu yëpp dootul nekkati loo xamante ne luy dagan la hmm. parce que baatu allahu akbar bi moom moo araamal yenn jëf yoo xamante ne daganoon na ci yow laata nga koy nga koy wax moo tax mu ne wa tahrimuha at takbir wa tahliluha at taslim la lay génnee ba gersoog yooyu daganaat ci yow mooy asalaamualeykum. Mm-hmm. Euh, loolu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon oustaz foofu euh, si fii li tasxiix lafz. Mm-hmm. li tasxiix lafz. allahu akbar kon allahu akbar wérul. ak mm-hmm. allahu akbar wérul aussi. non waxoon nañ ko ni ko waxee woon ci nodd gi moom lañ koy waxee parce que loolu ah. euh, du takbir xam nga mm. boo nee. Mm. allah akbar. Mm. Ah. ma ne yaa ngi demandé question nga nekk di laaj. Mm, yow mm. waxagoo yàlla moo màgg yow da ngaa nekk ci touche bi di laaj laajte ndax yàlla <laughs> màgg. kon léegi lan ngay conseillé kii kii jottali ndax jottalikat yi <laughs> bëri na li ñuy tàbbi si erreur boobu wax dëgg ngeen baal ñu dañuy nafar rek buñ nafarantee ñu ñaar ndax ki nga xam ne Oustaz Mouhamed euh, li ñuy faral di wax parfois nga gis nit ku ku lay wan ne ba muy julli juddoogoo effectivement effectivement nit dana julli te juddoogul nit tabax na fekk euh, juddoogoo mais yenn saa itam nga yëg ne. yéene ba mu àndal mhm. tollowul ak jëf ja oustaz Mohamed moo tax kon il faut que ñii dimbalante ñun ak jottalikat yi ak imaam yi pour que ñu xam ne mbir mi buñ ko neexal ba tax ñi génne ko ci contexte am oustaz Mohamed waaw <laughs> effectivement li ñuy kii rek mooy toujours li ñuy faral di wax mooy euh, julli dañ koy jàng effectivement ah. julli dañ koy jàng mhm. julli du mbiru xër ah. c'est-à-dire xër pour julli lu ama am solo la lu mm. ama am solo la mm. xër pour julli lu ama am solo la mm. mais li ëpp loolu solo moom mooy jàng julli ba xam ko xam nga al musii fi salaatihi ah, waa jooju ñëwoon ah, eh, nga xam ne moom moo référence euh, boroom xam yi toujours ci wàllu julli dañ dañ naan la nangam ci julli lii mooy atteem ñu ne la lay la la nga xamante ne moom mooy sukkandiku gi pour wax ne ko alhadisul musii fi salaatihi xam nga waa ji bi mu bi mu demee ba jaaxle mu dem julli ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laggal nga julliwaat <laughs> parce que jullee goo laggal sa léegi da nga dégg wolof sax laggal waaw laggal di wolof la moom <laughs> irji fa salli fa innaka lam tusalli ah, xam nga ku yàgg a toog ak yow <laughs> léegi mu laggal di wolof la moom laggal di mooy demal gaaw irji fa salli loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, laggal julli julliwaat donc waa ji dem bi mu ñëwaatee lan la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam munuma beneen julli lu dul lii nga gis ma koy def sama munuma munuma <laughs> beneen julli lu dul lii nga gis ma koy julli mais nag mu am grandeur ne ko fa allimni salaa kon ndeke nit sañ naa xool nit mu ne ko ni nga jullee est-ce la nit sañ na ko naa wax nit loolu dal dal dal dal dal na ma euh, benn at hmm. boobu temps euh, étudiant laa nekk Mauritanie di jàng ma ñëwoon vacances hmm. fii ci benn quartier ci quartier Dakar yi hmm. ma dugg julli tàkkusaan ba pare bi ma jullee tàkkusaan ba pare toog mu am benn góor mu ñëw mu ñëw di julli ah waaw jumaa njaayaani la jumaa xam naa wa jumaa waa njaayaani la <laughs> góor gi eh, ah. góor góor ñëw julli ba pare mais gis naa ne euh, góor gi ni mu jullee euh, dara waaw ah, naa kii euh, xaw soo jàngee da nga xam ne kii xaw mm. na xaw na sant Njaay mm-hmm. ma am xam nga léeg-léeg daf lay arrivé ngay hésité luy sa seytaane ñëw ne la ah, sa yoon ndeysaan ndeysaan waaw ah, effectivement euh, beneen beneen bi ñëw li yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ku nëbb xam-xam ah. allaaxira yàlla dalay saxal ngalaabug safara donc nga nekk diggante ñaari kii lu mm. sa yoon et ak lële yow la yàlla jàng yow la yàlla may xam-xam bu kii ni après ma ma ma ma ma takk sama fit mm-hmm. daal di ñëw ma fekk ko góor gu baax tamit ku nangu bi ma ñëwee ma ne ko papa nga baal ma de sànq nii nga jullee nii ak nii ak nii ak nii. papa nga baal ma. jar jàpp la. <laughs> Ah, ah, ah ah ud'u ila sabili nga baal ma de. Eh, nii nga jullee sànq am na ci nii ak nii ma kiiwal ko. paa bi dafa jàpp sama loxo góor gi daa jàpp sama loxo ne ma jërëjëf sama doom yàlla xam na ne jànguma damay ah. def nii di góorgóorlu rek. donc waa ji mu ne yonent bi sallallahu alayhi fa allimni salaa jàngal ma julli tey jii nii euh, kooku tane na ñu bëri ci sénégalais mm-hmm. Mm-hmm. ñoo xamante ne dañuy jàpp ne mbiru julli maala la gën maa la ma ba may julli juddoogo xam nga euh, jotaay yi weesu maa ngi doon baaxe sama jigéen ñi et ah. toujours ma ci insister nañ ko mm-hmm. kii ni jigéen buy julli ay tànkam daf ko war a nëbb mm, jigéen buy julli ay tànkam daf ko war a nëbb warut a mm, feeñ mm. am benn maire nee na ma ba muy julli juddoogo <laughs> <laughs> fekk ma koy laaye biir mu ne ma ba muy julli juddoogo te ba ñuy julli ba léegi ñi ñu nit ñi musuñu ñoo wax lii nii nii la <laughs> ma ne ko santal yàlla bi la yàlla mayee nga taseek man laata ngay koy wuyu ji ci bàmmeel mm, <laughs> ndeysaan parce que toujours nit ki ci diggante moom ak borom bi subhaanahu wa taala li mu mm. war a xool mm. moo di ne li ko yàlla baaxee mu xam ko ci lu mu dul woon def mu normal laata yàlla di ko woo mu lay wuyu si mu corrigé ko mu corri mu mu mu corrigé ko te sànq yaa ngi wax sànq ni sunu maam ju baax ja mu ngay wax ne ah. nit weexal na ci aariday ba ay xefam ma akmala salaata lirrahmaani musta matal li nga xamante ne moom mooy moom mooy julli donc loolu dama ci insister bu baax a baax sunu jigéen ñi mm. sunu yaay ah, seen doom moo leen di laaye biir seen soppe seen sët ah, fexe leen ba boo leen di julli seen i tànk wàcce leen sër yi ah, la jeunesse jànq ji léegi sax macha allah dañuy am mël fa ñoom soxna ah Kiné Mané ak euh, mi Seck euh, fële ci jàmm léegi sax bu ñuy julli léegi am nañ li nga xamante ne moom mooy mël yu jot yoo xamante ne moom la ñuy moom la ñuy julli donc oustaz mm. foofu mooy li ngay wax mm. ñiy jottali tamit ñu bàyyi ci xel bàyyi ci xel parce que ci baat yi allahu akbar Ah. toujours yow yaa ngi questionné. ak baar waaw nga gis ko am ne waaw waaw koo xam ne day baaral ah. allahu akbar waxoon nañ ne loolu tamit hmm. euh, baaxul donc baat bi moom mooy allahu akbar hmm. allahu akbar hmm. loolu mooy li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy baat bi euh, ñu bàyyi ci bàyyi si xel wax ko allahu akbar tamit wax naa ko sànq ni ci jullikat yëpp. Mm. Euh, la la la la mm. la war la war donc suñuy dugg nekkul ne. ah jazakallahu xayran nekkul ne kiy jottali rek. mooy wax allahu akbar loolu moo taxoon maanaam ñi nga xam ne ñu ngi si mbooloo mi waaw ñoom itam allahu akbar ga daf leen a war comme ni mu waree imam ba mu waree imam bi macha allah et la moo taxoon loolu sama <laughs> macha allah du dal la te la plupart ñi nga xam ne dañoo nekk si jàkka ji ci julli mbooloo mi mm-hmm. euh, da ngay sentir ne daal bàyyiwoon xel loolu. dëgg la oustaz ci kabar armal bi ak si sëlmal bi. dëgg la waaw li ma wax nii ngeen seet loxo si kabar armal bi ak si sëlmal bi. waaw te pourtant amin bi bi ñëpp koy wax ca que loolu farata la kon loolu dañuy taxaw si oustaz Mohamed. <laughs> jazakallahu xeyran oustaz ah. effectivement maa ngi ah. doog a bàyyi xel bi nga jud tuddee ki nga xam ne ah. kii jottali. da ngay dem ci yenn jàkke yi. Mhm. macha allah soo duggee ci jàkka joo xamante ni.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 baatu allahu akbar moom mooy farata effectivement dafa war képp kuy julli moo mm. xam imaam la mm. wala li nga xamante ni moom mooy mamuum la mm. mamuum mooy ku ñu jiite mm-hmm. wala mu nekk yow kase boo doon julli tamit doo ñëw rek yëkkati say loxo noonu mais da nga war a wax allahu akbar donc allahu akbar ah, kaw donc loolu mooy waaye ñoom su koy si la nag ci suuf <laughs> waaw <laughs> waaw loolu tamit ñu bàyyi ko xel macha donc ñetteel bi mm-hmm. dafa lëkkaloog ñaareel bi mm-hmm. moom mooy alqiyaamu li mm. takbiratil ihram ah, taxawaay ba taxawaay ba mm-hmm. taxawaay bi ñuy taxaw pour mm. kabbaruk armal dafa nekk loo xamante ne farata la mm. ponk la ci li nga xamante ne moom naa boobu boo daaneele si boobu ñi ñi ñi daaneel si tomb bi dem ci li topp ci waxtaan bi incha allah waaw donc al taxawaay gi nga xamante ne moom la ñuy taxaw pour kabbaruk armal tamit kii mm. la mm. dafa bokk ci li nga xamante ne kii waaw mm. donc dinañ ñëw incha allah bu ñu yegsee ci ruko dinañ ñëw ki nga xamante ni moo ñëw fekk imam ruko jàpp li nga xamante ne mooy bëtu moom nan lay lëkkale ak li nga xamante ne moom mooy alqiyaamu la donc tey ci jotaay bi jël nañ li nga xamante ni moom mooy ñetti ponk ginnaaw bi ñu ja bi nga xamante ne ku nekk ci ñun tënk na tey saa bu ñu la laajee bett la faratay julli ñaata la réponse bi moom mooy quatorze quatorze waaye taxawaay boobu taxawaay boobu itam ma ni nga ko laalee da nga a yaatal waaye dinañ dinañ doon na doon na baax itam nga wax taxawaay bi ndax taxaw da ngay taxaw taxaw boo xam ne am na ñoo xam ne taxaw mel ni ku xaw a lem benn tànk benn bi xaw a kii ndax loolu tamit wala lool du ci dara waaw alqiyaam na li am solo rek mooy na nga taxaw jub jub jub ah. bañ a def inxina ah. bañ a toog tamit mm. di di par exemple nit ki toog mm. par léeg yenn gars yi tayal mm-hmm. mu dégg ñu ne allahu akbar mm. fi mu toog mu ne allahu akbar jugaale ko yooyu ah, yooyu yooyu yëpp kii kii ñu bàyyi ci xel daal macha allah oustaz Mouhamadul Amin waxtaan wi am na solo tey li ñuy indi lëggum ci faratay julli nga xam ne nee nga ñu ta ndorte la ne fukk la ak ñeent nga indi si ñett yoo xam ne ba ca jiitu moo nekkoon yéene ba kabaru armal ba ak taxawaay ba incha allah yii di ñëw waxtaan wii di ñëw ajjuma bii di ñëw dinañ gën a yaatal mu gën a am solo foofu la ñuy yem ci li nga xam ne moo nekkoon thème du jour dañuy jël ci li topp ci waxtaan wi mooy sama laaj ñi dem jëli sama laaj te ñëw incha allah man damay laajte ndax jigéen buy julli day liqaam wala. Ah, Oustaz Mouhamed dégg nga laaj bi ñu ngi may ñu ngi may soufflé ne waxtu waa ngi jeex te des naa tuuti lu mu war a àggale Oustaz ngi tontu laaj bi te daal di wéyal waxtaan bi. waaw heureusement laaj bi sax euh, tontu ko nekkul loo xamante ne mm. comme niñ ko déggee. Mm. nekkul loo xamante ne lu luy jël temps la. Mm-hmm. parce que ni mu ko waxee. Mm. effectivement jotaay bi weesu. ci bi ñuy wax ci wàllu liqaam mm. euh, tudd ñu woon jigéen ñi jigéen euh, moom euh, liqaam du du du farata ci moom mm. du du mm. du sunna ay niya eh, mais sopp nañ ci moom mu liqaam mais ak yelu ak yelu du du yëkkati baatam day bay day liqaam ci suuf macha allah maanaam jigéen daal boo boo bëggee dégg mu gàtt jigéen daal léppam sutura la tabaaraka rahmaan yàlla na yàlla defal leen tawféex kon nag Oustaz daanaka li ëppoon ci waxtaan wi wéy na kon li ci topp mooy ñi dem jëli nag liy jeexal waxtaan te mu am solo lool pour man mooy leçon du jour leçon du jour bi ñu jëlee ko te ñëw qaala inni abdullahi aataaniya alkitaaba wa jaalani nabiya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم macha allah macha allah leçon du jour baa ngi noonu yéen ñëpp yéen a ko gisandoo aaya alxuraan la boo xam ne da ngay faral dégg ñi di ko jàng ah, man tax ah, mënoon naa koo jàngaat mu gën a amati solo waaye bi ngeen dégg dafa dàq sama bos kon ñu doyloo ko Oustaz Mouhamed aaya bi signification bi ñu ngi jaajëfal kilifa gi nga xam ne nag moom xam na boppam mi ngi seetaan bu baax ñu ngi koy nuyu bu baax di ko bàyyi xel mu nekk suñu kilifa incha allah nekk suñu kilifa fii ci kër gi muy topp waxtaan wi mu ñor ko lool macha allah moo ñu yónnee li nga xam ne moom moo di leçon du jour bi di ko ñaanal yàlla moom ak njabootam yal na yàlla sàmm leen oustaz loolu ñu tënkal ci aaya bi wan saar la ne ak la lay firi <laughs> donc oustaz euh, aaya bi xam naa gars yi buñ ko déggee buñ ko commencé dégg rek dinañ ànd ak moom gars yi challenge def nañ ko challenge ci mm, biir mm. Euh, TikTok beeg mm, yooyu mais léeg-léeg da ngay gis nit ñi dañuy challenge benn mbir topp ko rek sans autant ñu xam ñu xam sens bi lan lay tekki euh, donc aaya bi mu ngi nekk ci suratu Maryam suratu Maryam yàlla subhaanahu wa taala doon ci wax histoire yonent yàlla Isa alayhi salaam bi nga xamante ni xam nga Isa alayhi salaam euh, dafa wax fekk ne huwa fil mu ngi nekk ci li nga xamante ne moom mooy berceau mm-hmm. nekk liir bu tooy xepp ci la wax kàddu ya mu wax nag mm-hmm. ba mu ñëwee gars yi di tuumaal yaayam ya so Seydina bi mu ñëwee wasin indi liir bu tooy xepp mm. ñu ne ko foo jëlee liir bii nii fa mm-hmm. asharat ilayhi mu ne leen ki may plaideel sama avocat mu ngi nii sama doom ji qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya ñoom ñëpp ñu ne waaw naka la ñuy wax wax ak koo xamante ne liir bu tooy xepp la rek xale bi yàlla wax loo ko qaala donc ay ay voix la yu ñu dégg qaala inni abdullahi aataniya alkitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa awsaani bilsalati walzakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya donc képp kuy challenge aaya bi te doo julli doo saraxe respecté woo sa way jur jarul ngay challenge yi yiiwewu yiiwewu yiiwewu parce que li ngay challenge hmm. mooy Isa dafa wax ne inni abdullahi hmm. nangu ne moom jaamu yàlla hmm. ataaniyal kitaab yow est ce que yaa ngi jàng alquran boo dul jàng alquran bul challenge tiaaya bi <laughs> waaw bu ko topp neexaay bi rek bu ko def affaire affaire ah, événement effectivement wa jaalani mubarakan ayna ma kuntu ñal nañu yàlla barkeel fu ñu defal ñu ko yàlla defal defal leen ko yéen ñi seetaan ñu daal donc wa awsaani bi salaa yàlla dénk ma conseil ma pour may julli mm-hmm. wa zakat mm-hmm. maa dumtu hayyan mm-hmm. fekk maa ngi amee bakkan di dund nay saraxe naay naay joxe azaka naay julli wa awsaani bi salaati wa zakati maa dumtu hayyan wa barram bi walidati lu ma mën a def ci mbaax naa ko defal sama wayjur bu jigéen waaye bul agressé pour teral sa yaay laa waaw ah, am na am na am na ñoo xam ne lu ne ñoom teral seen yaay jaral na leen lu ne mais nañ ko teral rek waaw ah, loolu kon lu mat a bàyyi loolu bokkul sax minal bir bokkul minal moo tax yàlla yàlla ne ma barram bi waalidati bir la kii mm. baax ci samay wayjur donc c'est beau wala mu yejal ni jabbaaran bul nekk ah, tamit koo xamante ni bul nekk bandi bul nekk wëyu bul nekk wëyu bul nekk délinquant waaw asiyan koo xamante ne du dégg ndigal donc loolu moo nekkoon li nga xamante ne moom mooy verset bi moom la alquran la afdalu ma yutla wa ma yuqaalu wa xayru ma yunfaqu fihi almaalu qiraatu alqurani inda annaasi kaza rawa aymatu alqiyaasi boo ko toppee aaya boo jël verset boo jël mën na yor adduna mën na yor leneen lu dul adduna sax ndax kalaam kalaamul malik ad dayyaan subhanahu wa taala mu jaarale ko si jibril indi ko si sayyidina muhammad sangu-sang yi mu ñëw si ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy sangu xeet yi loolu la yàlla dogal Oustaz Mouhamed waxtaan wi jeex na takk soxna Fari mi ngi may kaata si oreillette bi looy jeexale looy tàggatoo. Oustaz jazakumullahu xayran di delluwaat di jaajëfal ñi nga xamante ni moom mooy. ñi àndoon ak ñun ci liggéey bi mm, yëpp mm. di wax ne rek euh, jotaay bi jotaay jàngale la mais tamit jotaayuk nafar la comme ni ko suñu jur bi waxee et loolu nekkul li nga xamante ne moom mooy gàcce wax ne fàtte na mm-hmm. ngir ne nit ki léeg-léeg dafa am ay mbir yoo xamante ne da koy def dem ba bu koy defati sax du mën a tënk wax ne nangam la mm-hmm. wax ne fàtte naa nag nekkul li nga xamante ne moom mooy gàcce donc bis ni ki tey nañu xam ne faratay julli quatorze la dinañ ci ñëw benn ak benn <laughs> dinañ ci ñëw benn ak benn tey la àjjuma yéen a ngi waaj julli ji juma waaye bu leen fàttee jàng suratul kahfi moom mooy surat la caverne je crois que moom la surat dix-huit surat dix-huit moom ngeen mooy surat suratul kahfi te itam ngeen di bari lu ngeen di julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam façon boo julli si moom baax na si moom façon boo julli si moom baax na euh, ngeen teel a dem jumaa ja ndax teel dem jumaa itam dafa bokk ci ngëneel yi Duudal dafa changé bés waaye bés bi mu changé sax moo ñu dàqatil la ajjuma yéen a ngi noonu doon seetaan yàlla yàlla defal leen tawféex defal ko defal ñu ko ñun ñëpp ñu bokk ko di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon encore une fois gi di leen jaajëfal baax a baax ak itam oustaz suñu doyen yi nga xam ne ñu ngi ci kër gi ak mbooleem ko xam ne yaa ngi liggéey RTS oustaz Idrissa Gueye oustaz imam uh, Ousmane Sarr ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi fii ak suñ soppe bopp imam Moussa Gueye nga xam ne ñoo bokkoon dem foofee defoon fa loolee incha allah macha allah di jaajëfal ñëpp Euh, waxtu wi jeex na tàkk di ñaan yàlla kàddu yi fi jóg yëpp yàlla na yàlla defal ñu ko yiw ñu bokk ko hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim juma mubarak صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه صلى